du jeudi le 5 euh, euh, décembre 2013 mbokk yi waxtu bi nga xam yéen yéen a ngi seetaan Kouthia Show en direct di ci am mbégte contentement ci euh, li nga xam ne nag moom mooy début de mois bi nga xam ne moom mooy mois décembre weer bu mujj ci weer yi tey nag di la 5 di bés boo xam ne mooy alxames jeudi ci français ñuy am mbégte ak contentement bu baax di gërëm ñi nga xam ne ñoo toog di seetaan émission bi war a ñu taxaw di ko seetaan ak fu nit mënti nekk rek ñu ngi leen di bàyyi xel dina xamal ne ñun daal ñu ngi ci jàmm partenaires yi nga xam ne nag ñoo ñooy suñu sponsor yi ànd ñoom chaque jour ñu wax leen ko xam ngeen ne miso dellu si na miso ananas baax na ci période bi ndax nag ni ngi waajal li nga xam ne mooy màggal gi te berndeel yi daal berndeel say mbokk ci li nga xam ne mooy miso bokk na ci li nga xam ne dina neexal li nga xam ne moom mooy jotaayu euh, ak jotaay yi nga xam ne nit ñi dañuy bëgg di nekk ci jàmm xam ngeen ne bii wax naa leen ko moom mooy Royal Energy Drink kii nag démb ñam naa ko mu daa dee neex tey dama koy tàmbaliwaat ñamaat ko mu neex hmm. ah alhamdulilah neex na saf na mbokk yi ngeen jàpp ne warga bi nga xam ne mooy Gaza Super di warga bi neex bi nga xam ne Sénégal ñëpp xam nañ ko boo bëggee mu xonk-xonk boo bëggee mu dosé dosé ak noo ko bëggee rek ça dépend ca ka koy attaaya bu ñu ànd ak ñooñu nag Orange Money mooy moo leen di may seen émission ndax Orange Money transfert d'argent la boo xam ne mën ngaa yónnee mën ngaa jot xaalis ci sa portable te tamit mën ngaa fay ay facture kon mbokk yi xam nga ne Orange Money yomb na ndax boutique Orange boo dem taxaw laajte ñu jox la information li gën a yéeme nag moom mooy deux cent dix huit yi nga xam ne deux cent cinquante francs maanaam juróom fukk mun naa tax nga doon multimillionnaire multimillionnaire boobu nag noo ko mën a doonee samedi bii di ñëw la sax nañ leen gën a gënal argument yi ngeen xam lan mooy njëriñu Africa Million ci deux cent dix huit millions yi léegi nag bu ñu jógee ci côté xaalis bi ak koom-koom beeg wane produit dañuy ñëw ci fiche technique bi nga xam ne réalisateur central bi di Pierre Da Silva ànd ceeg ay techniciens yu mag ku ci mel ne nag nekk ci son ca son ba ànd ingénieur Babacar ingénieur Amadou di nuyu tamit ki nga xam ne moom madame Guissé ñoom ñëpp ña ca kaw ca régie ba ñu leen di nuyu ku nekk sa tros sant fii ci suuf nag mami décoratrice en même temps euh, maquilleuse ñu koy nuyu de passage di nuyu Ndiaye Sané entretien ak ñoom Kara ñoom ñëpp léegi <laughs> ki ñu njëkk seeti tey mooy benn naar bu ñu naan Abdallah Ben Abdallah Bourli <laughs> ñoom démb waa Bolléré ñoo ñëwoon tey waa Dubaï poor ñoo ñëw di mettitlu ak li nga xam ne nañ leen fa jëlee indi fa ñëlee ñoom lan la ne am na beneen façon boo xam ne ñoom daal noonu ñu nar a taxawee ak sénégalais yi nga xam ne nekk ca Dubaï deuxièmement buñ fa jógee. ci biir émission bi am na sëriñu tubaab bi nga xam ne moom mooy sébastien ñëw na Sénégal taxaw temm joxe ay dat joxe heure joxe période nee na ci waxtu boobu ci date boobu ci heure boobu incha allah Karim dina génn sëñ Jili Wade mi demoon seeti Karim Wade ba mu jox ko benn message mu war a jàllale ay fan sam wax leen li nga xam ne moom lay dund ci kaso bi moom ci boppam dana ñëw ci biir émission bi waaye nag Cissé Lo mi nga xam ne démb bi Aïda Samb ñëwee mu daal di koy génne foofu ci assemblée bi mu dëppaatee tay na taxaw ne day joxe turu journaliste yi ndax ba tey journaliste yaa ngi bind kon tay émission bi ku bëgg a xam kan nañ compal ak ku ñu compalul ak ñi woo ñu découragé bu leen teggi seen bët ci télé bi das <laughs> waay hmm. euh, sama gaay temps yi nag day waaru xam nga temps yi moom dëkk bi moom dafa xaw a day waar xaw a day waar bi mooy rek xam nga day eh, rew ba tas daal <laughs> mais man sama gaay waa Russie waa leen nuyu àdduna amul solo quoi weer bi dee na ba pare xam nga fu mu ne nii weer bi dee na xanaa ngay gayen ku nekk dina mun a romb sa morom sax ne ko bonjour bonsoir ça va quoi fekk affaire xaalis mooy tax gars yi di fas seen kanam. ay moom wax dëgg yàlla xaaral sax mën naa naat tuuti. damay gént ay ay gént yu neex muy gént yoo xam ne xoolal damay dugg ci ay mbàjj yoo xam ne ay xaalis ñoo ci nekk man xaw ma lan la barke démb benn vingt euros moo ma topp di ma dàq ji. <laughs> di ma dàq ji ma jékki-jékki rek gis garab goo xam ne ay milliards ci sax man xoolal damay gën di lekk ay sombi sombi sombi mille francs sombi dix mille ay sombi yoo xam ne boo tibbee rek mu nekk xaalis <laughs> ma sax di génn sën ma xaalis mais taay xaalis dama ko topp di ma indil ay problème chaque xoolal démb dama génn xoolal dina am rek yëpp nekk xaalis <laughs> wala léegi daal ma def rek xool dama def nii sax gis xaalis te du ma yor dara mais seetkat yi ak xam ci xam-xamu xaalis nañ ma wax loolu banque la wala lan la a wan dañ may waaj. man ragal naa ne man xaalis yi may non am na lu non am na lu ci laax